moom itamit nga xam ne euh, euh, si kon bi doon euh, président groupement sant yàlla ba noppi nag macha allah nag di délégué bu marché jàmm gën ñu koy ziar baax a baax nag mu jullee fii ci jumaa ji imam Adama Faye doon jiite tey fii ci Kër Mbay Fall mbaa Kokordu ñu ziar ko rek bàyyi ko moom mu daal di ziar mbokku julli la mbokku taalibe yi tons maa ngi lay ziar baax xaaj delloo naa la ziar maa ngi lay ziar bu baax a baax a di wax déwénati ñëpp di ñaan yàlla fekk nañ ko doon yàlla nañ ko fekk di ñu bëree bëri bëri di di rafetlu nag xutba bi nga xam ne imaam Adama Faye def na ko ndax xutba bi dafa tombé ak actualité te loolu la ñu soxla ci imaam mooy tey imaam boo dégloo xutbaam delloo na nit ñi ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala fàttali nit ñi na yonent bi alayhi salaatu wa salaam woo ndaw ñi nag surtout ñoo xam ne ñoo nekk ci réew mi. ñu taxaw nangoo liggéey nangoo góorgóorlu nangoo daan seen doole ndax nag àdduna liggéey moo ko yore réew liggéey moo ko yore te imaam te ak seen xutbaam bi yëpp di conscientiser ndaw ñi di woo ndaw ñi ci góor góor góorgóorlu taxaw liggéey taxawal seen réew fonk seen waajur nangoo jaamu yàlla nangoo daan seen doole ah loolu yaakaar naa ne euh, message bu am solo la kon nag euh, bàcc ñu ngi ñaanal imaam gudd fan ak wër di ñaan yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaayam gis nañ taxawayam ci diine ji yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax bés bu fiñ taxawee ci kanamu mimbar bi mu ngi fàttali nit ñi seen borom mu ngi fàttali nit ñi ni ñuy jaamoo yàlla mu ngi xiir daw ci liggéey kon nag mu ngi koy ziar bu baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekk doon ñu bëri asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ñu di président